ren ñoom nekkatuñu ci nguur gi waaye ñu ngi ci coalition boo xamante ni Benno Bokk Gis-Gis la tudd di ay nit yoo xamante ni ci biir parti démocratique sénégalais la ñu nekkoon ci nguurub Abdoulaye waad ñoom nag mbir mi daal nee nañu leçon de démocratie lañ ci jàng ndey nag lépp li nga xamante ni daal moo tax taxawaay beneen bu bees la ci penc ndaw réew mi nekk ay yeneen i xeeti député ñoom tamit dina nekk daal loo xamante ni daan ci yëngu bu dee nag jiital nañ leen ci assemblée nationale reportage ca waa Benno Bokk Gis-Gis suñu natanko Khalil Kébé. ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin di bis bu nit dootul fàtte fii ci suñu réew jàngat yu bari moo ci génn ba ci waa bokk gis-gis yi fi nekkoon doonoon ci ay député ni jëlee nañu ci ay jàngat yu dul jeex. boo doonee nit boo bokkee ci dara nga dem ba xool ne peut-être lii ak lii daa ngeen ko def mais dangeen ngeen juum ba senegale yi ngeen bokkal dëkk bi ne leen ne lii ak lii ak lii baaxul mais loolu da koy bàyyi. xam nga dañu wax ne dans notre constitution que procédure d'urgence c'est de droit bu ko président de la république demandé xam nga procédure d'urgence moo ñu indil 23 jours loolu ñu ne dañ koy encadrer ba nu mu gën a néew te loi bu am importance bu ñu ko indeeti assemblée nationale en procédure d'urgence xam nga loolu tirer leçon ci expérience looloo tax nag ba waa bokk gis-gis jàpp ni ay député yu am taxawin yu yees moo jaadu ci assemblée nationale gannaaw jàngat yile ndaxte coowal ñaar fukki fan ñett ci weeru juin nag ñoom waa bokk gis-gis jàpp nañu ni li ñuy dippee procédure d'urgence bokkoon na li leen yóbbee juyoo ak askan wi le bi moo ñu sanctionné peuple bi moo ñu won ne nañ ko doon defee du noonu te comme bëgg ñoo tàqalikoo ak ñoom te ñoom ñooñu tax a jóg ñu jël beneen yoon waxtaan ci ne nañ doxalee bii ba kurnu bin rey sa maam nag boo gisee lu ñuul daal di daw looloo tax ba waa boo ko gis-gis nag fas yéene soppi seen taxawaay ak seen jëmuwaay ngir taxawal programme contrat bu yees ci pencum ndaw réew yi ngir mën a doon li leen askan wi di doye